jooy léegi foofu samay bët ndax gëm naa ni nit Cheikh Béthio ne ko sëñ Sall defaree noonu la ma sëñ Sall defaree xanaa xamu leen ni 1996 dañoo bëggoon a dàq ci avocat ndax ma jàppate jàppate bu tàng ak ay magistrat magistrat yi def réunion ñu nañ ma sanctionné de façon nit de wax ko sëñ Saliou ni ko Me El Hadji Diouf de murid la ndax sëñ Ahmadou Mbacké ba sëñ Modou Mamoun Mbacké mooy sëriñam Daaru Salaam mu Cheikh Anta borom dërëm ngërëm mm. mu ne na ñëw ma ñëw sëñ Matar Jaxate mooy dégg xam naa mu ngi seetaan sëñ Matar wax ma ñëw mooy boobu muy bëkk nekk sëñ Saaliw hmm. sëñ Matar Jaxate ba ñu ñëwee maanaam pale de Tamba kon naa ñu ooma ma jógee Tamba ñëw Kaolack fanaan xëy dem wuti Touba mais bi ma ñëwee sëñ bi bi ñu jëlee tàkkusaan ba pare mu ne naa yegg ñoom kenn moo fekkee ak sëñ Matar kenn ki bon bëgguma tudd turam mais mën naa tudd turam mën naa ne mag la ci man mu ne ma man de maa jiite daayira di nga bokk ci ñu ñëw ci sëñ Saliou hmm. mais man man awma li nga am ndax sëñ Sall dafa ñaanal ba tibis ba may ndalaw ci poojam bii muy bind sama yaram di tiim di dugal loxo sama yaram di bind teg bopp ba ci ci poojam bu bu bu bu sell bii bu tedd bii may nalaw ci poojam bi j'étais jeune avocat ah. maa ngi soog def six ans ci avocat 1996 dama faa génn rek sama tur bi daal di naaw. macha allah du kenn du waxtu déggoo El Hadj Diouf. macha allah. mu ñëpp di wax lan la man xamal leen mboot mi. <laughs> Cheikh Saliou Mbacké bokku ci. may wax moom war ma loo xam ni man dama jommi ndax wax nga ne kenn xamul sëñ Saliou mooy kan. ndax wax na sa Cheikh Bégué dégg sama xarit loolu la woon. dama dem exposition ñaaree rakkay 5 septembre à saint di liir procès Sëñ Touba man dama judd ci murit may dem ñaari rakk yi may lire procès bi di xool sama rango ñuy tuuru ma ne sama tuuru gi dee ko gën man jamono yii laa war a nekk avocat bu ñu nee Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké mu ñëw taxaw ci wetam di ko met El Hadj Diouf sa bii jàlloo tubaab bi xeex ñoom li may xeex Sénégal yëpp amuñ njëriñ kon man kii war a xeexal. ma toog rek xam naa mooy seetaan parce que du teel a nelaw sama xarit maa ngi koy nuyu sëñ Moustapha Saliou daal dina ma maître dama bëggoon nga ñëw Touba ñu ànd dem sëñ Saliou mu am procès ndar ma ne ko non sëriñ man du ma ñëw du ñëw Touba nañ daje directement CNI. mu ne ma d'accord ma ne mu ne ma noonu nañ dem daje kër Baye Gueye ne ko loolu du ma dal foofu damay fayal sama bopp hôtel ndax sëy saa li ma defal la ñu dem ci procès bi bi ma taxawee ci procès bi sëy Moustapha Sall mu toog ci saal bi ci kanam kii ñëwoon dafa bëgg a faat bakkani Serigne Saliou te yëpp ko cour d'assises bu Saint-Louis ñoo ko bàyyi Diouf xaw ma ñoo ko Diouf ba dafa waroo sant Diouf mu taxaw ci baar bi ñu ne ñu oo ko mu taxaw ñu ne Cheikh Saliou Mbacké ma ne Maître El Hadj Diouf ma ne Sëñ Tuubaa góob. Sëñ Saliou Sëñ Tuubaa di. la ma métti woon ma di ko jooy. Ah. Sëñ Tuubaa war na ni moom jurul kenn mais Saliou mii moo ko jur. maam yàlla fi ñëwoon teew fi tudd fi sëriñ Saliou Seex Saliou Mbàkke lu mu doon ku ko xam dimbali ma ndax ma xam lu mu doon mbaadu yàlla fi ñëwoon teew fi tudd fi sëriñ Saliou ki daal ay mayam ëpp na Bamba ne woon Isaa sama doom la moo tax dama ne mën day dama d'abord ndar lañu àtteewul Sëñ Tuubaa xoolal ma rek Ah, procès bi nar la encore. hasard amul. Serigne ci ku nekk xalif. Mhm. général. yow yaay sëñ Touba. mais xanaa nag yow xutbu samaan nga léegi. xanaa xutbu samaan ku nekk xalif yaay Serigne Touba. Ah. <laughs> du loolu la ku nekk xalif yaay Serigne Touba xam ne du ma ko nangu tey ah. ah. non mais. donc après ma ne la. Mhm. li ma may. lama ma doon jooy ni aw ma ko. Mhm. ndax bañ koy attendar. nekkuma avocat juddooguma. may na ma ñu oo Serigne Saliou mi nga xam ne mooy Serigne Touba ñu oo ko ma ne maître El Hadj Diouf avocat Serigne te Serigne Moustapha Saliou def loolu sama xarit maa ngi koy nuyu ma bëgg ko lool mu bëgg ma ndeysaan ak a nekk bañkat Serigne Moustapha Saliou ak ñu bokk ay tax mu bëgg ma ak a dëggu moo fi jël ay milliards yu bëri yi fi sëñ Saliou bàyyi woon dem jëfe ko sëñ Baara muy xalif bu bees bi ke nee na alal ji moomu sëñ Bamba ko moom sëñ Bamba ko ku fi nekk rek yaa ko moom kooku mooy sëñ Moustapha Saliou jàmbaar la toog nañ Kazu Rajab te que sëñ Touba ga jalo jàlloog grande mosquée de Touba mm-hmm. temps projet CDE ak Touba ci affaire de marbre bi ñëpp a ngi toog Madické Niang avocat Assane Dioma Ndiaye Ablaye Babou Maître Mbaye Dieng ñëpp avocat yi Ibrahima Mbeng y avait trente six avocats ñëpp di avocat Cheikh Amadou Bamba ñëpp si àll si bés Maître Xasim Touré yal na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin sama soppi ba yal na ko yàlla yërëm sa barak. yal na ñu ci àjjana yu kawe ya. xel moom. solde bu njëkk bi ko ma dikkee jaa fay man la ko jox ma jox ko alaaji Cheikh Touré bàyyam jaa ngi neew joxal ma ko sama bàyyi mu saraxeel ma ko ñaanal ma bàyyi mu ne ma dégg naa la Xaasim Touré yaay magam Dakar sëñ Moustapha Saliou ma ne ko ñëpp wax ba pare ma ne ko yow yaay généralu sëñ Touba titre général yow yow laa gis ñu war la ko décerner ndax sët day jege maam. sët mooy maam maam sët la gën a bëgg sax di doom. dëgg la de. yow ni nga mënee défendre Touba ba marbre bi ñu naroon ñu nax foo de murid yi ñoom ay dof lañu. yow yàlla may la nga yeewu yow sëñ Moustapha Saliou yàlla may la kenn dàqu dégg arab bu làkkee arab arab yi dañuy toog dañu jébbalu kenn ëpp la xam-xam yow nga taxaw ne marbre bi ma commandé woon pour mosquée bii. ndax mosquée Sëñ Tuubaa bi mosquée bi war a dàq après bu yonent bi ci daal la bokk incha macha allah. Mm-hmm. te wane na ko Touba wane nañ ko fii Masalikul Jinaan parce que waa Touba dañoo am jom. Mm-hmm. ndax na mu kenn dem mu nekk ginnaaw. Mm-hmm. kon loolu. lu am la. ma dégg naa fi ay wax yu bëri yoo xam ne ñii wax dañoo xamul. waaye rek man xam naa xam na li mu xam. kenn mënu ma jaxaseeg Touba. déedéet. donc loolu laa bëggoon a wax ci sa woy bi ni ma def tey. daf ma yëngal daf ma ñuluk hmm. terewul nag donc ñëpp laa fonk di nuyu nag xalif général des mourides sëñ Mountakha hmm. borom reeju neex ji ndeysaan dafa wowlu ba ma ñëw si Moustapha la karam oba sama xarit Moustapha Abdoulaye Karam bu aafee bu tooki bu Jurbel bu Daaru Salaam ne ma wuy wuy si sëñ bi ma ñëw ma recevoir ma ñuy waxtaan mu ne ma alaaji ku la ma laa man lépp sa ñun ñaa ngi dégg ñu suivre yow sa maam Fodé Diouf Bour Saloum dernier Bour Saloum soo bàyyi bàyyi ah, waaw mu ne Buur Saalum Fodé ak Buur Ñaani Cendé la Faal ak man ñoo bokk benn voyage benn bateau dem Makka en 1958. kon suñu mun taxaa nga xam kon lu mu nekk nekk mag macha allah fàttewul dara. maa koy nuyu di nuyu. Hmm. suma xarit. nitu dëgg moomit it ki nga xam ni ah fulla jeeg fayda ji sëñ Mbaye Sy Mansour xalif de Tidiane di ko dëggu am caractère fulla ak fayda man na ko lool di nuyu nag sama mbokk yi surtout waa Medina Baye man waa Kaolack laa samay cousin ku mel ne Khalifa Niass sama doom bàjjen Mariama Ndiaye Wack nga xam ne soxna ba Niass la woon parce que am naa cousin boo xam ne Baye Niass mooy papaam muy l'ancien maire de Kaolack Khalifa Niass macha allah yaayam di sama bàjjen sama bàjjen moo bëgg nag ñu Mariama Ndiaye Wack di gërëm laayeen yi di nuyu di nuyu ñëpp église bi waa Njaasaan mm-hmm. boo gisee lii parce que damay laaj réew mi mm-hmm. yaa ngi doog wax kay dafa jot <laughs>